ben eh, on doit sortir d'abord on doit sortir des albums parce que ñun il se trouve que par dix ans la ñu génne. par dix ans par dix ans la ñu génne album. te nekk na dix ans fu mu nekk nii gën a génne album te mais quand même heureusement pour nous li ñu toog yëpp. Mm-hmm. toog li ñu toog génnewuñu tooguñu kese mais on a des albums. mais man waaw ak génération yi nga xam ne ngi ñëw di succédé wu ci musique tout le temps heure bi waroon na fekk Fred Guissé jël retraite am bu yàgg constat rek laay wax mais dama gis ni que Fred Guissé ba léegi mu ngi survivre mhm. yéen a ngi voyagé yéen ngi mhm. joué yéen ngi mhm. def ay after work euh, lan lan moo lan moo tax ngeen ngeen di survivre ba heure bii nit ñi ñoo bëgg ñun lu ñuy def c'est cinq parce que boo xoolee euh, ñun on a fait au moins dix ans wala quinze ans de pratique jël ay guitare am nañu bagage balaa ñu naan parce que euh, li ñuy def loolu parce que dinañ dinañ toog fukki at bu ñu génne album dinañ toog fukki at du ñu génne album ci fukki at yooyu lan te loolu moo jaaxal ne ñu commencé que quelque un un tubaab dañuy wax loolu comment vous faites pour tourner alors que yor leen album même balaa ñuy génne album tourné nañu 10 ans balaa ñuy génne album à l'international on a tourné pour faire connaître le nom du groupe balaa ñuy génne album te 10 ans def na 10 ans alors ñun ñu yor génne guñ ci dara moo tax léegi léegi ma ne la on a des albums à sortir parce que à chaque fois on enregistre instant bi ma wax yow on a enregistré 4 albums. yoo xam ne yu toog yoo xam yu toog. lu leen xaar pour génne ko. waaw moom la bëgg a xool nan la koy génne. lii par exemple euh, c'est un morceau boo xam ne ki s'adresse au couple. au couple c'est un polar ma langue que j'adore qui kii du àndu mooy sama soppe xamal xamal lan mooy sa sutura ànd ko mooy sutura ma alors li muy wax mooy sa bu tàng ci man bul yuuxu bul agir bàyyil mu set su ma la tooñee bàyyil mu set xam la bàyyil ba suuf sedd ñu mën a waxtaan fekk kenn dégg ñu te loolu mooy stabilité publique comme on le dit la stabilité dépend de l'éducation de l'environnement de la personne. ah, ah. Dimigido andu. Konigido andu. Dimigido andu. Koni soto ama. gido saa mitini ebu wapuhane

ina ima lara mi ñu manama gidu samitini wapo hamen gido sinijuni eba wapo hamen wapo ifikini kama hakorendo sen jamo muy loramiñu wonuma gilli gilli namdi ko jam gilli gilli gilli gilli gilli ko jam gilli gilli namdi ko jam yo gilli gilli gilli jam garabine andu gede garabine andu Yarabini andu gidelam, yarabini andu gidelam, gidelam andu bodu yetma. Yarabini andu gidelam, chak chak cha andu gidelam, andu gidelam chak chak cha eh. wong cha cha cha. Andu gidelam chow chow chow, bye bye mangidelam, andu gidelam aisha wong aisha aisha, andu gidelam.

ko nuyuwul ne eh, ko gili gili. ko daan <laughs> il est plein d'amour la euh, moo tax ma koy woyal de. naa su fekkee da am lu la metti ma la. Mhm. ngi lay ñaan. waaw nga dal. nga dal ba suuf sedd. ba guddi. ñu waxtaan ñu waxtaan. te kenn du ñu dégg. parce que noonu yi bu ñu ne déggee dañuy dañuy dañuy kontaan te xale yi bu ñu la déggee dañ koy foowee mhm. xam nga ci lislaam sax dañ koy wax soxol bu tàngee fekk nga tàng taw yaa ngi taxaw toogal waaw pour dal mhm. bu fekkee nga toog tëddal parce que loolu lu muy lu muy junj dafa bari loolu mooy lu mu tàng tàng tàng jéemal dal <laughs> voilà yow sa émission jeex na sa émission jeex na sa émission jeex na. feeling bi ne woon bàyyi ma dem. xam nga xam nga lii lu tax ma jàng ko. nee naa la joué nañu 15 ans ay musiciens ñoo doon accompagner des fois ki nekk sa ginnaaw da lay accompagner mun na joué loo xam yow du la neex. que tu partages pas que tu sens pas mais da ngay woy ci tu fais avec parce que ñun. noonu la ñu màggee lii c'est collé à toi c'est collé à ton cœur li ci génn yëpp yow la sentiment yi ci génn yëpp c'est toi. macha allah nga xam ne yow c'est collé à toi day day day day automatique dafay def nii rek day magnétisme magnétisme lay nekk mhm. les sentiments qui se reflètent à partir de la voix mooy reflété wu à partir parce que la personne elle-même. mu ngay matérialiser nga enjoy. merci beaucoup en tout cas ça a été un immense plaisir et voilà c'est une des de une des des des plus émissions que j'ai tournées donc sama playlist ko booy ah. Cheikh. bu leen ñu màgget loo <laughs> kontaan et merci beaucoup. merci à toi. le merci en tout cas nii la adduna c'est ça. Euh, euh, nit ki mënoo ko xam tànk waxul loolu la quoi parce que li nekk ci nit moo nekk ci biiram mm-hmm. alors tànk ubbeekul doo ko xam et que euh, àdduna moo demee nii di leen ñaanal rek daal tabaski bi mu ngi nii déwénati ak jàmm di ñaanal ñëpp taw feex ak wér yaram merci beaucoup ak réussir à tous les projets et merci aussi à l'équipe tu sama gars yi Guélé et Kébé waaw ça, c'était un, un bon ça, ça, ça n'est pas est là. En tout cas, c'est c'est une très belle équipe. Mm-hmm. yow sa liggéey euh, nit ñi kenn du ko lam-lame alhamdulilah te te foofu yaalam yaalam dafa am comme kii naax <laughs> xam yaalam xam la yéen mooy wax de suñ euh, ko xam laayam laayam la amu ca merci les gars. léew léew waaw merci beaucoup. Djiby Frère Guissé ñu jaajëfal ko bu baax a baax tey gis ngeen ngelaw gi bari na bruit bi des fois ngeen dégg ko ah. ñu ngi ci terrasse hôtel Colonia. Mhm. donc voilà c'est magnifique. vue bu nice lañ jàkkaarloo nii. Mhm. Euh, di remercier bu baax a baax ki nga xamante ni moo di Kébé. remercier aussi ki nga xamante ni moo di Papis Dem mais ñu remercier bu baax aussi ki nga xamante ni moo di le monteur euh, de l'émission ñu koy jaajëfal bu baax a baax jaajëfal leen. magnifique ah Tompoji bi c'est c'est magnifique hôtel ah. a ah. donc voilà boo leen nekkee ci suuf ci rez-de-chaussée bi da ngeen di kontaan mais boo leen yéegee ci kaw aussi dafay mel ni da ngeen di am Dakar en miniature voilà y a la mer ah le phare des Mamelles c'est c'est vraiment magnifique les montagnes c'est vraiment magnifique day wone rek ni ko Dakar richesse bi ñu am fii moom macha allah. voilà endroit yi aussi dafay baax ñu di ko wane. ñu di ko wane mu ngi noonu. merci beaucoup à dimanche prochain incha allah jaa ngeen jëf mbokk yi